waa coalition mbaa benn bokk yaakaar yi moom ñom ñoom fan bëgg nañ lu yaraax bi ah da iya, do jël yaraax ne ko kep rek bañ ko bayyi <laughs> ndaje bu ndaje da yaraax de xana ñom serigne bi doon doon serigne bi doon den ñaanal xana sarax bi da ngeen jaawale saraxe ay beeco ak i da bëgg da ngeen bëgg de di di di mitigu BRT bi mitigu BRT bi oto yi dañ maa dañ maa romb naan fër fër fër fër fër fër maanaam oto yi moom xanaa ay përi Dakar lañ përi Dakar ñu ne man dafay daw dafay daw dafay daw ma <laughs> leen dafa lu fi daw ñaama si Sonko la ñu bëgg lay lay bañ a dégg ma ne ko kooku moom la daw waaye daa war a génn réew bi <laughs> ndax loolu da koy dégg de Sonko yee Sonko la ñu bëgg Sonko la ñu namm Sonko fi ne ndax da nga koy dégg boo ko bañee dégg da ngay daw génn da ngay daw génn kii te seen saraxu beeco bi ngeen ngeen retiré ko saraxu beeco bi ngeen saraxe moo waral seen lépp di yaraax fi mu ne